nañ léegi maa ngi li ngay wax ni si mu taxaw gi ñu toog ci waaw baax na bu ko neexee juróom-ñeent. lii lépp li ci def yéen a meloon ko muy waxtu bant bi ba nga xamante ni du max bu fii même pompe yi ni mu tolloon na toog ni mu ko defee bii bu mag nit mën na cee maa ngi am yéene sax muy defar bu soobee maanaam bu déwénee ku ko defar moom moo ma ko andil lii de boole ma aar bi nga xamante ni waaw boole bi nga xam ne yaakaar naa ne moo nekkoon matin ak fii bi ma fi jaar lépp ba fa alhamdulilah ak